jaa ngeen jëf euh, jaa ngeen jëfati yéen mbokki internet yi nga xam ne yéen a ngi ñuy suivre seen chaîne YouTube bi IYAT TV comme niñ koy faral di defee rek ci jàngat yi euh, dañuy dikkaan nag wante balay loolu yëpp rek di la ñaan yow mi nga xam ne gan nga ci chaîne bi nga abonné ci chaîne bi te ngay bës cloche de notification bi parce que dinañu jàppale bu baax a baax a baax dañuy dikkaan nag mën nañ ci analyse yi bi yoon nag ñu fas yéene dikk. ci actualité bi nga xam ne rek mën nañ moom moo lëmbee jamono ji ci euh, niki tey te muy euh, génn ki nga xam ne rek moom mooy euh, Pape Djibril Fall mën nañ nag moom mii nga xam ne rek boobu ba tey ñu ngi dégg ay kàddoom mu mel ne koo xam ne nag day xaw a diirante mbagg ki nga xam ne rek moom mooy président Ousmane Sonko loolu nag nekk mbir mu nga xam ne rek ñu baree bare baree bari daal nañ koy jot a ñaawlu nekkat moom mii nga xam ne mooy Pape Djibril Fall les serviteurs dégg nañ ko ay yoon yoon bu génnee rek dana mel ne koo xam ne day sànni track ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko donte nag ñenn nat ci patriotes yi naqarlu ko wante kat liñ indi que ay raison moom mooy ne moom mii nga xam ne mooy Ousmane Sonko yàgg nañoo gis foo xam ne rek day defendre kii di Pape Djibril Fall te tamit mësuñoo gis mu yëkkati benn kàddu jëmale ko ci deram wante nag li métti Pape Djibril Fall mooy yuuxoo yi nga xam ne rek xale yi doon nañ ko ko yuuxoo ci euh, euh, li nga xam ne rek moom mooy rencontre bi F24 doon amal loolee kat mën nañu bokk na ci li gën a yëngal sax euh, bagage yi ba tax nag mu daal di génnaat bëgg fee yëngalaat mbir mu nga xam ne nag mu doy waar la yegg ci ay kàddoom yëkkati kënekat ñii nga xam ne rek ñoom ñooy joolaa yi dañoo dem farak ki nga xam ne rek moom mooy Ousmane Sonko comme ni ko pulaar yi di waxee nedd ko bandum loolee nañ ne mbir la mu nga xam ne nag mën naa jur li nga xam ne moom mooy coow ndaxte kat affaire u ethnie yi nga xam ne rek bëgg na kaa dugal nekk lu nga xam ne lu doy waar doy waara doy waar la fii ci réew mi di Sénégal ndaxte kat bu ñu demee ba muy yegg ci nekkat ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy joolaa yi mbir minimel dañ koy amal pour nag jàpp ne usmaan Sonko moom moo war a nekk seen président loolee dafa nekk coow lu nga xam ne rek bis bu juddoo musiba mën naa am wante sax yamu ca moom mii di Pape Djibril Fall yegg na ba tey ci ay kàddoom nekkatu ki nga xam ne sax moom moo gaañu wala sax ñi gaañu ci manifestation yi nga xam ne rek moom moo passé mën nañ ñi loxal kii di Ousmane Sonko génn si ndaxte kat lu jig njaak moom moo di njaak moom mooy yabal ñi nga xam ne ñoom ñooy xale yi pour nag ñu wàcc si terrain bi di euh, xeex ak ñi nga xam ne rek ñoom ñooy euh, takk der yi te loole kat mën nañ ñi bakkan bu sa daal di juddoo wala sax jiyee bu sa amee rek dañuy jàpp ne problème pur et dur daal di nay am problème boobu nag nekk problème bu nga xam ne rek ñu baree baree baree bari dañ koy faral di naqarlu rawatina nag moom mi nga xam ne rek moom mooy njiital les serviteurs di Pape Djibril Fall eh, ci ay kaddoom yu nga xam ne rek mën nañ ñi depuis bi mu bi ñu gisee mu daal di tàqali ko ak ñi nga xam ne rek ñoom ñooy waa yeewi askan wi mën nañ sax loolee lañ ko mën a tuddee ndaxte kat gisatuñ ko ci li nga xam ne rek moom mooy seeni programme eh, te eh, day faral di sànni ay taraak s su tax ñu bëree bëri daal di commencé nag di ko weddi danteel nag ñi koy jàppal tànk moom mii di Pape Djibril Fall yegg si ne moom dafa nekk ku ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko ndaxte kat liggéeyam moom mooy liggéeyu ak lu manti xew am dañuy jàpp ne ñoom ñaar ñëpp ay jeunes lañ te ñu bëgg réew mi di Sénégal lañ pour nag fas yéene koo liggéeyal wante nag euh, bu ñu fàtte ne dañoo nekk ci euh, daayira politique maanaam ku ci nekk rek da ngay ràcc jëmale sa kanam te olof Njaay dafa am lu mu wax te mooy euh, koo xam ne da nga ràcc jëmale sa kanam da ngaa bëgg mu uddal loolee kat bu fekkente ne jàpp nañ ko mën nañoo gëm kene kat kii di Pape Djibril Fall li muy def pour nag dal ci kaw Ousmane Sonko mën naa am lu mu ko may ci biir langue politique gi wante kat mën am lu xañ ci langue politique gi ndaxte bu ñu fàttee kene kat yi nga xam ne rek demoon nañ fa ba mu may ko lii nga xam ne rek moom mooy euh, kiiraayal li nga xam ne rek moom mooy député jëm mën nañ ne eh, waa yeewi askan wi jàpp nañ si lool donte le ñenn ñi sax di ko bëmax ci nekkat président de la république moo ko buuxu rawatina ci parrainage yi nga xam ne rek ñi ngi ko doon def wante kat lu si manti am moom mii di Pape Djibril bokkoon ci ñi nga xam ne ndaw ñi dañ leen a joxoon lii di nopp au début muy wax ñu koy diglu wante kat le fait que mu daal di commencé di am succès dañoo gis changement bu gaaw a gaaw Euh, changement bu nga xam ne sax daa bett ñu bare bare bare bëri changement boobu nag mën nañ ne moom mooy li nga xam ne rek moom moo gën a pire changement boobu moom mooy changement bi nga xam ne ñu bare bare bëri daal di nañuy remarqué que kii di Ousmane Sonko daal di commencé nag di bàyyi xel bu baax a baax kii nga xam ne rek moom mooy Pape Djibril Fall euh, ci kàddu yi nga xam ne rek da koy yëkkati ci moom wante kat li olof di wax tontu du forox ne ñi nga xam ne ñoom ñooy patriote yi te li nga xam ne rek moom mooy seen tont pour nag xaar xaar ki nga xam ne moom mooy kii di Pape Djibril Fall ndaxte kat ñoom jàpp nañ ne euh, Ousmane Sonko nekkul nawleem kon nag kan moo war a nekk nawleem du ñenn ñu dul ñi nga xam ne ñoom ñoo gën a euh, suufee ci ñi nga xam ne rek ñoom ñooy euh, Pastef maanaam les patriotes mbir moomee kat mën nañ ne euh, jamono yi ñu toll nii yëngal na réew mi di Sénégal ndaxte kat bu ñu xoolee ci manifestation yi nga xam ne rek moom moo passé mën nañ ne kat ñaari nit ñoom ñoo doon jàmmaarloo maanaam ñaari kuréel ñi nga xam ne ñoom ñooy patriotes yi jàkkaarloog ñi nga xam ne ñoom ñooy takk der yi kon nag bu sa bakkan rotee rek dañuy jàpp kënekat dafa am xeex xeex bu nga rek moom moo judd ci seen diggante ba tax bakkan daal di say rot kon nag ñoo jël bakkan boobee rot rek ñu daal di koy askanale ci diw nekkat moom moomee moom moo tax ndaxte kat li olof Njaay di wax benn lam ci loxo du yëngu te tamit benn euh, loxo du tàccu kon nag bu jëyee ji ni amee dañuy jàpp ne am na sabab bu ko waral lañ war a lijjanti nag du lenn lu dul nga xam rek moom moo waral mbir mi ni mel ba tax bakkan yi daal di rot kon nag bu ñu gisee moom mi nga xam ni ne mooy Pape Djibril Fall jug adressé ko direct ki nga xam ne rek moom mooy président Ousmane Sonko ñu bëree bëri ne ah waaw loxoom lu ci génn de wante kat bu ñu fàtte ne ñaari camp ñoom ñoo doon jàkkaarloo kon nag bu fekkente ne dem nañ ba jëyee si am si tamit dañoo war a jàpp ne dañoo war a fexe xool naka la ñuy def ba réseau résoudre problème boobu maanaam bu fekkente ne woon ay jafe-jafe la ñu fexe ba jafe-jafe yooyu dootu am te loolu kat loxol ki nga xam ne moom mooy président de la république mënu see génn ndaxte moom mii di président de la république moom mooy ki nga xam ne dañ koy xaar saa su ne moom mii di président de la république moom mooy ki nga xam ne bu problème tàngee moo ko war a moom mii di président la république moom mooy ki nga xam ne rek Sénégal yëpp dañ koy xaar ci dossier yu bëree bari kon nag bu réew mu demee tàkk tàng ba toll fii war naa mën a génn nag fexe ut lu nga xam ne rek dina dëfal ñi nga xam ne ñoom ñooy askan wi maanaam loo xam ne dina ko teg ci seen loxo ba tax coonoog jafe-jafe coow lu sew li nga xam ne rek mu ngi doon am ci seen biir ñu daal di koy jël ndànk rek daal di koy tegaat ci suuf teg ci suuf googee nag mën nañ ni jàppal ma jàpp lay doon ndaxte parti au pouvoir da war a jàpp parti d' opposition bi tamit dañ see war a jàpp ndaxte bu ñu fàtte ne réew mii di Sénégal fi lañ nekk benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar comme niñ koy faral di waxee wantekat dafa mel ne bis bu nekk dañuy nemmeeku ko ne wax joojee dafa nekk loo xam ne rek day yem ci aw làmmiñ wante kat xol yi moom yëgg fa boobu ba tey bu buñ xëyee dinañ gis lu gën a bees ci ay dossiers yu nga xam ne rek loxo day dem gémmiñ te du yóbbaale type loolee nekkoon li nga xam ne rek mën nañ ne moom moo gënoon a ci ki nga xam ne moom mooy Pape Djibril Fall ci jamono yi toll nii kon nag yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ñuy teewlu fu ngeen mën a nekk ci biir réew mi ak bitim réew di leen di jaajëfal bu baax a baax te tamit di leen di ñaan ngeen wëy ngeen continuer ngeen abonné ci seen chaîne YouTube bi IYAT TV ba beneen yoon ñu dikkaat ak yéen ci yeneen i jàngata jaa ngeen jëf